ñuy yëngu euh, bu ñu demee ba loolu ne daal di jeex ñu dem nag ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla dafa am solo trop si ñun muy consultation gratuite donc ñu yàgg di ko def ñu ne kat bii ba dañ koy génnee ci banlieue bi daal di koy may waa Pikine surtout waa Pikine Corona le 22 incha allah le 22 avril ñu ma def consultation gratuite fële ca district bi Pikine Corona bu 8 heures euh, demee tamit ba ngoon yaakaar naa ne fu demi final amee rek faaw final am moo tax nag bu demee ba ngoon ñu daal di dellu ca terrain bi. daal di football suñu final donc xool exactement kan moo koy gagné donc lool daal moom mooy moom mooy programme 21 ak le 22 mu des nag le 23. Euh, le 23 nag yàlla bu fekkee boole na ay nit donc janvier ba décembre euh, dafay rafet nag bu lundi commencé ba dimanche bi di ñëwaat ñu toog daal di xool toog daal di xool bi mooy. fan la ñu ak fan mais également suba fan la jëm donc le 23 bi loolu lay donc nous avons di très xool perspective loolu daal euh, moom moo daal di les 12 heures de l'association pour la vérité et le développement justement. ñu ngi génne suñu Nous avons ñu autorité pour def dara mais nous ngi lancé un appel vers tous les tous tous tous les toutes les autorités en fait ngi lancé un appel.

Euh, di kontaan seen teewaay di remercier ñu mbooloo mi ñëpp ak waa diaspora les les téléspectateurs de la diaspora 7 ak euh, tout le monde merci beaucoup.